nationale jumtuwaay la bi nga xam ne njiit yi mën nañ ci sukkandiku ngir seen yorin jaar yoon loole mooy gis-gisu kii di Ahmed Ndiaye doon jàngalekat ca EBAD. état bi la commandé lépp lu muy liggéey si mbind la te euh, archive yooyu di jóge bi yooyu aussi preuve la preuve yi nga xam ni état bi daf koy yore pour moom si boppam man défendre ay intérêt état bi dafay financer. si ay domaines yu bare. donc kayit yooyu yëpp état bi daf ko war a soxla te dana ko war a garder pour mën a commander gérer affaire yi loolu la archive di jëriñ. ngir doxal mission yooyu nag ñii di waa direction des archives ñuy sakku ci nguur gi mu gën a yeesal bànqaas bile. parce que administration bi document yu bare yi nga xam ne mi ngi koy def di ko jëfandikoo te di ko laaj nit ñi ay document këyit la ay document papier la donc njumtukaay yu bees yi muy informatique ak li ñuy wax numérique yooyu yëpp dañu fi nekk comme ay outils yi nga dan dañuy war dimbali mais war nu remplacer li nga xam ni archives yi dan ko doon def. yeesal boobe nag ñu war ci dem ak ndànk suñu sukkandikoo ci kii di Ameth Ndiaye nga xam ne jàpp na ne manuel bi ba léegi mën na jëriñ lu bëri ci administration bi. il faut ñu am li ñu naan bâtiment dédié boo xam ne day am condition conservation yoo xam ne dina ko may mu denc ay disque ay clé ay lépp luy technologie bu bees bi. waaye loolu mooy suñu li ñuy jooy ndax Sénégal ba mu amee indépendance ak léegi mënagul am euh, maison des archives. ñii di waa direction des archives di profité ci ayu bés bi nga xam ne ñoom lañ ko jagleel ngir delloo ñu kël kii di Babacar Ndiaye nga xam ne nekkoon na fi directeur jiite institution bi le nga xam ne ràññee nañu ko bu baax ci xarañteem.